xiyaari addaarayni kafayta lil mbokk yi ak xarit yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo bu baax euh, tey nag ñu delsi fii ci dëkk bi nga xamante ne nii moo di Ngaye Mame Balla ngir defal leen seen découverte bi ngeen baaxoo am Ngaye Mame Balla nag bu ko waxee ngeen xam ne moo di dëkk bu sell dëkk bu tedd ñu war leen fay defal reportage tey ci bis bi ngir xamale leen ak cosaanu dëkk bi ak lépp loo xamante ne daal lu ñu baaxoo xam la ci dëkk kon ñu topp suñu réalisateur bi mu àndak moom jëm ci fii nga xamante ne moom moo di Ñayma Mballa ñu xam li nekk ci biir alhaaji baaram sëriñ Fadilu dal taxaw farjoo yi dal dalal xel yépp dundi ngëlëm alhaaji baaram sëriñ Fadilu dal taxaw far jooy yi daal di dalal xel yépp dindi ngëlëm bam ne jalañ dafa salaat jumaa ji bu wér leeral xurum ji ba foo xool Mbàkke gis fa jëfa ngay ñu gën ko ràññee ci ngayu Mame Balla di dëkkub diine di dëkkub cosaan nekk ci diggante njurul ak xelkom digganteem ak Touba toll ci vingt cinq kilomètres kii di Mame Balla Aïssa di doom ci mamaaram mu ngi fi làqoo 1867 ñu denc ko fi ci gay dëkk bii di ngay ñu ràññee fi daara ju mag di daaray alxuraanu karim ñu gën ko ràññee ci daar yi sëriñ Galas Kalto Mbàkke ibnu sëriñ Alxaaji Baara Mbàkke ibnu sëriñ Mouhamadul Fadal fii ci daara ji mu takk sàkkoo di fi yewoo di fi jàng karim di fi xam-xam bàyyoo ko fu ne ci réew mi audu billahi min asseytaani rrajim bismillahi rrahmani rrahim wassamai wattaariq wama adraka mattaariq annajmu saaqib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 innahum yakiiduuna kayda wa akiidu kayda famahilil kaafiriina amhilhum ruwayda sadaqallaahul aziim kii di Serigne Ndiasse Diop nekk kenn ci jàngalekatu alxuraan ci daara ji. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax. di rafetlu ci kàddu yi ci jéegu yi ngeen dox ñëw ci daara ji ndax li bokk na ci li nga xam si day yokk lislaam ndax xool foo xam ni fu kilifa nekk di bay waar di liggéey si Ahmadu Bamba la nga ñëw di ko leeral ba nit ñi mën see roy loolu ama am solo la waaye man nag kenn laa ci seen daara yi ñu may wax Njaay si Jóob am naa ñu may fi bokkal nekkal nag ku mel ni si moodu Camara ak si Ahmadou Cissé ñoo fi nekk di jàngal alxuraanul karim nekku ne daara ji moom mën naa ni comme ni nu ko daaru baaxoo nekkee rek mooy sëñ bi dafa def daara ji def ko majaanan maanaam def ko wax fu lillaahi maanaam def ko ngir yàlla di jàngal doomi jullit ci lislaam te laaju leen dara ku ne xam na ni doo nga dana ku dajale mbooloo dana aajo woo nekkin muy fun tëdd loolu lépp sëñ bi préparé na ko préparé na leen muy lu mel ni néeg yi ngeen gis ak sàmbur yi yëpp mën na ni donc loolu gi nga xam dana faral da am ci yenn barab yi moom amu fi waaw seen nekkin woowu ba tey it ku ne xam na ne nit fu mu nekk dana aajowoo toilette ak yu ni mel loolu yëpp suñ fàggul leen ko it ba nga xam ne mën naa ni doo ci lim benn sax waaye ab lim la lay doon mooy yéela nekk sa ginnaaw ñu ngi wax ay toilette nekkinu jàngin bi it euh, ñi ngi siy góor bu baax ndax mën na ni fii ñi fi mokkal bari nañ bari na ñoo xam si dalee nañ fi jàng fi mokkalee fi bindee fi kaamil ba jàng fi xam-xam ba ibbeeku doog a dem euh, maanaam continuer seen jàngum xam-xam waaw loolu it ñu ngi ci sant yàlla bu baax ba jon yàlla tey jii ne sax am na ñoo xam ni eh, ñu ngi fi bind kaamil ñu ngi fi bind kaamil ndax lu mel ni weeru koor euh, su su naa fi la jotee comme ni ko ni ko ni ko ni ko ni ñu ndax Tuubaa mooy sunu royukaay euh, ndax li nekk Tuubaa lépp moom la ñuy dund fii muy ci xasaay di ci lépp ci weeru koor jotee tey Euh, ñi nga xam ne ñooy la sax mën na ni ku la tey bala balaa balaa balaa sa tur balaa sa tur di kat maanaam bala ngaa naafila waat dana am ab diir mën naa ni sa weeri ñaaw na nga ciy naafila kon loolu firndeel na ni ñi fi mokkal bari nan ñi fi mokkal bëri nan wàllu xéewlu gi it lépp sëñ bi moo leen ko warul muy lekk ak naan ak lépp waaw sëñ bi mu leen fàggu lépp laajut kenn dara waaw xale yi taxaniwun yëlawaaniwun waaw moom daal jàng la leen defloo ci jàng la nekk boolewuñ si leneen waaw loolu daal mooy li nga xam situation euh, donga yi eh, jamono ji waaw comme ku ne xam na ni yor ay xale yombut ndax dañ ni téeméeri nag benn yet moo sàmm mais téeméeri xale moom xale bu nekk ak ndax da gis xale boo xam ni euh, li naan sunu borom day bind nit mu jub kenn du ko yar am koo xam ni soo ko yaree mu yaru soo ko yaruwut du yaru am koo xam ne si moom dara mënu si kenn mënu si moom dara nam mel rek yàlla moo ko bindee noonu waaw kon loolu tamit dañ ciy bàyyi xel bu baax ndax jàngale jamono ji mën na am na xale boo xam ni yedd ngay wax ak moom am koo xam ni xëy na da nga jëflante moom mu doo a jaar si yoon waaye lépp ci xel lañ koy teg ndax bu nu fi nekkee ba léegi yaakaar naa gisuma fi koo xam ne suñu daar boo xam ni lor na fi gone bala mu gaañ fi gone waaw ndax toujours rek ci xel la ñuy doxee xale bi ngir mu mën a jaar si yoon siraatal mustaqiim ngir mu mën a ngir alxuraan ji mën a dugg si moom te duñ jaara moom ci dóor wala leneen ak leneen donte dóor lu ñàkk waaye it yéen dóor yi tax ñuy wax duñ ko def waaw ndax mën nañ fii sax kenn mën nañ duñ fi jéng kenn ndax daara ju toll nii moo jéega Tuubaa ni mënoon nan gis fi jéng yu bëri may gisu fi kenn ku ñu jéng kon loolu firndeel na ni xale ñu ngi jàng ak seen tey bakkan ci lu dul loo xam ne ñu ngi leen di final final ju tax joo xam ne dana waral ñu daw waaw loolu tamit ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax yërmaane la lañuy la ñuy dénk bés bu nekk ci xale yi waaw yërmaane la ñuy dénk ci xale yi bés bu nekk moo tax loolu tamit dañ ci sàmm bu ci dañ ci dañ ci bàyyi xel bu baax waaw ndax sëñ bi dafa ñaan bexte iyaali bilaa bu ko ay kon loolu tamit dañuy dañuy fas yéene jëfe bayitu sëñ boobu noonu ci lim mu wax ne bexte iyaali bilaa bu ko ay waaw ñu ni jàngee alxuraan tamit man ne moom la ni jàngee xasaayit fi suñ jàngee alxuraan ba wàcc ma rax ñi nga xam ni mënaguñoo faragun ijji dañuy sikar pour laa ilaha illallah ñi nga xam si far na ijji it te te te jàng xasaay mi du leen gàllankoor dañuy jàng xasaay it di ko répété euh, ndax mooy ndax ndax ngir ñu bañ a taxawaalu guddi geeg yooyu boo defee suñu yëkkatee ba tàngoor maanaam ñu doon dem tëri waaw nga xam ne ni jàngee xasaay ndax ndax xasaay day day day dafa bokk ci tërbiya bi ndax tërbiya ndax jàngum kase waxuñu ko. ndax njàngum kese moom xam-xam bu bëri te amatu teggin loolu day lekk suñu tubaab nekk suñu tubaab waxee rek jaala butun el asa wa temps bi kon tamit ñun dañuy jël xasaay di ngir mu ñu jàppale ci tërbiya comme ni suñu bo waxee xasaay ni euh, suyo faaxo suyo tërbiya moo tax dañu ci boole xasaayit ngir it moo mën a jàppale ñu sa xale yi ba nga xam si dana mën a jaar si yoon si at mustaqim loolu tamit dañ ko si boole waaw kii di sëriñ Basiiru Busa nekkoon jàngalekatu alxuraan ci daara ji laata muy nekk imaam bismillaahi rahmaani rahiim comme niñ ko waxee ci tàmbali bi noo ngi sant bu baax sunu borom subhaanahu wa taala ci doon giñ doon taalibeb sëriñ Tuuba di leen sant ci taxawaay bi comme niñ ko leerlee ci tàmbali bi ginnaaw biñ jógee ci daara ji ñu jaar ci jàkk ji yàlla dogal nekkoon fi ab diir di jiite di taxawaay taxawu nit ñi ci seen diine waa dëkk bi ñoom it yàlla dimbali leen ba lii nga xam ne mooy néegub yàlla ku ne xam na ne liñ ko war a dundalee mooy julli ak yacaaju te sun borom wax ci alquraanu karim innama yaxmur masajid allahi man amana billahi wal yawmal axir aqama salaat wa ata zaka walam yaxsha illa muhtadin tagg ñi nga xam ne ñooy dundal jàkk ya tege ñu di ko def moo tax it ginnaaw liggéey bi suñ galas ci dëkk bi bokk na ci bi mu sosee daara ji it xam na ne doomi aadama soo ko jàngalee ba noppi wan nga ko woon lim war a pratiquer bokk na ci njàngum lislaam nag li nga xam ne su ko jàngee man war na ko pratiquer bokk na ci jàkk ndax arab yi dañuy wax naan al madaris xabla al maanaam bala ngaa dugg ci jàkk na jaar ci ab jàngukaay ba noppi ndax jàkka ci lay ci la ñuy feeñalee la nekkoon ci daara ja moo tax jàkk ji ngeen di gis waxtu yu juróom ñi ngi ko fi taxawe diggante màggi dëkk bi ak ñi nga xam ne ay gone lañ te nekkoon ci daara ji ba jàng li ñu war a jàng ñépp dañ fi ñëw di fi joxe seeni farata di yëkkati baatub yàlla saa bu yëkkati ko jotee mooy nodd gi ngeen gis ba ñi nga xam ne ñoo yore nodd gi sax ci daara ji lañ bàyyi ko kon loolu di liggéey boo xam ne sëñ bi jëm suuxat na ko ci dëkk bi noonu it lañ koy dundalee ci koor gi ni nga xam ne bari bi sëriñ Tuubaa yépp loolu lañ fay dundal ci koor mooy taraawi naafila kaamil bi xale yi nga xam ne ñoo ne ci daara ji wattu alxuraan bu koor gi jotee danañ fi taxawee naafilay tàmbalee ko ci boppu kaamil bi ba fi mu jeexee ni nga xam ne ñoom noonu lañ koy defee Touba kon daal jàpp naa ne li ñu dundal Touba ci diine ñoom sëñ bi mi ngi koy roy fi roy di ko jéem a jëmbat ci waa dëkk bi di ko jéem a jëmbat ci waa dëkk bi ba lu ci baree bari teg nañ ci loxo ba lu ci baree bari teg nañ ci loxo moo tax jàkka ji mu naal ko ci ginnaaw gis ngeen jumaa joo xam ne moom la bëgg a gën a yaatalaat ngir dëkk bi doon dëkk boo xam ne lépp lu war a am ci ab dëkk muy loo xam ne ci lay nit ki di jaamoo yàlla dana fi am ba tey it bari bi liggéeykaay it fas nag fi yéene kon daal jàpp naa ne li nga xam ne moom la ñëpp war a def rawatina képp ku bokk ci sëriñ bi mooy fexe ba sañc ab dëkk nekk fa di dimbali taalibe ci seen ci seen ci seen ci seen àdduna di dimbali taalibe ci seen diine loolu jàpp naa ne mi ngi koy def kon nag loolu moom moom mooy li am solo li nga xam ne dund na ko ak waa dëkk bi ba ñëpp xam ko ci ba nga xam ne ré maanaam lu baree bari loo xam ne nekkoon na fi boo déggee ñu lay nettali ñi nga xam ne ñoo seeni maam nekkoon nañ ci dëkk bi par rapport ak jamono yi danga dañ la wax ne lu baree bari sensé na fi loo xam ne ci baaxub sëñ bi ak daara ji nga xam ne moo fi ñëw loolu bokk na ci li ko sensé kon nag sant yàlla bu baax te wax alhamdulilah rabbil alamin te lépp rek di ko gërëmee sëriñ bi xam ne liggéeyub sëriñ bi bu nangu rek la ndax sëriñ bi nga xam ne mooy maam Balla Aïcha bi mu fiy jaar ku ne xam ne ni mu fiy jaaree mooy dafa da doon daw rek wuti foo xam ne dana fa nekk di fa jaamu yàlla di fa làqu ba yàlla dogal ñu lor ko jeexit jooju it te sunu boroom ñaare bu lay fay jeexiti la nga doon liggéey dana da lay fayaale ci lool ci na kon nag jeexiti maam Balla jooju sunu borom firndeel na ko ci dëkk bi nga xam ne mi ngi dund ci alxuraan di dund ci xasaayit dund ci doon taalibey sëriñ Touba kon ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di rafet lu taxawaay bii ndax ni ma ko waxee ci njëlbeen rek tasaare lu baax moom mooy liggéeyal lislaam rek képp ku la gën a mën a jottali lu baax rek na xam ne mi ngi xëy ci lislaam kon yàlla na leen yàlla dëgëral kàttan na leen ba li ngeen bëgg a liggéey ci lislaam rawatina yoonu sëriñ bi ngeen àggale ko fu kawe njort wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. loolu seeti nañ kii di sëriñ Galas Kaltoom Mbacke ibnu sëriñ Alxaaji Baara Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal di fondateuru daara bi mu jotee ndigal ci waajuramu tedd woowu di sëriñ Alxaaji Baara Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal ci atum 1988. asalaamaaleykum wa sant yàlla suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di seere sunu pas-pas ci Cheikhul Khadim gannaaw bu ñu nuyoo bokk yi euh, di joxe ay tontu yu gàtt ci ni ñu ko waxe mooy ñoo ngi tudd alaaji Mouhamadou Fadilou Mbacké ñu gën ñoo xam ci Galas Kaltoum dëkk fii ci Ngay euh, di taalibeb Cheikh Amadou Fadal bu koy jaar ci kër Cheikh Amadou Lamine lépp ñibbisi bisi ci Cheikhul Khadim waaw dëkk bi li nga xam ne moo nu fi indi euh, ndigal rekk nu fi indi ndigal lu ñu Cheikh Amadou Lamine joxoon 1988 yàlla dogalee ñu jóge ci daara ji ba ñibbisi euh, nekk Touba. fa jàng xam-xam ak ndaamak ak yàlla dogal bis mu xëy woolu nu xamal ne woon dama am yittey bëgg nga dem ngay ngir nekk fa ma dëxal la fa la wax nga dëkk fa taxawul ma waa dëkk ba ak tund wa ci seeni farata Euh, nee ma dëkk bi de mënees na fee jaamu yàlla mënees na fee liggéey mënees na fee liggéeyal sëriñ bii it nag wax na ma sax mënees na fee liggéeyal sa maam loolu ñu ciy sant yàlla bu baax 88 la woon bi ñu toogee ba nawet bi jub si euh, mu ne ma da wut jiw yóbbu ko fa ñu bayal la ko rek ngay dem ak dikk 88 def naa loolu def ko 89. ba 90 nag mu ne ma euh, da ngay dem nag far fa toog euh, jàpp ne daal dëkk boo war a dëkk la nekk fa sama ndigal ànd ko waa dëkk ba te jàpp leen jàppale leen seen wàllu diine waaye rawatina ci seenu taalibe teg na ci sax ne ma euh, nit lañ ñoo xam ne donte que li li ñu xam bariwut ci wàllu àdduna ak wàllu diine waaye pas-pas bi leen yàlla dénk ci seen digg ak sëriñ bi mën na leen may lu ne kon loolu bokk na ci li tax lañ war a am te sëriñ bi di leen ko may pas-pas boobu ma xam ne am nañ ko moo soñoon mu jaare ci yow nga dem fa toog liggéeyal sa maam alhamdulilah yàlla dimbalu ci 90 bi yàlla dogalee Cheikh Abdoul Khadr yal yàlla dolli njëggalam ak i leeram ba liggéeyam ba matee ba bis ba dellusi si muy alxames yi ñu ko ñaanale ba mu dellusi si la ma Cheikh jëlaloon boppam ci otoom ànd ak ñi mu àndal yóbbu ma fa ak bëccëg du ma ko fàtte bëccëgu alxames laa dem ngay ngir sanc nag fas fa yéene toog sama yoon bu njëkkoo def naa fa yaakaar naa fanweeri fan ak ñett yoo xam ne jaaratuma Touba ngir barab boo fay soog a ñëw bari na yu mu laaj ndax bi yàlla dogalee ñu ñëw fi ni kër gi bindoo ak ni dëkk bi bindoo day laaj nag nga jege barab bi taaxeer ndu fi ci taxawaay yi nga xam ne la nit war a taxawe fu ñu ko yóbbu te bëggal ko fa dara yàlla dogal bi may dem mi ngi ma booleeg ñetti mbokki taalibe ku tudd Modou Diouf mi ngi fii ci kër gi ci ëtt bi toog mag la koo xam ne ci daara ji la newoon daaray Serigne Falilou nekk ci daaray Cheikh Modou Lamine ba ni ñu ma booleeg moom ñu dem fa muy magum taalibe mu ñu àndal ngir mu wéttali mbokkum taalibeem muy ñu sàkku ji lu baax ak ku ñu naan Pape Sarr ak Abdou Fall ñi li ma sëriñ bi boole loon ñoom ñett ak man bis ban fa njëkkee wàcc yàlla dogal na kër gi benn néeg a fa nekk ñu ñëpp ñoo bokk ci benn néeg bu ñu suturloo ba bët set bi ma xëyee yàlla dogal jamono yaakaar naa ne lu matul fukki junneeg nangam daal ne woon sama poos wala fukki junneeg nangam ma jënd ci benn néeg ba ma xëyee rek laajte naa dëkk bi fan laa mën a amee néeg ñu jaay ma fa benn néeg ci 6000 francs néeg boobee ka ma ko jaayoon ak kër ga ma ko jënde woon bi yàlla dogalee ñu dem ba taxawal fa daaree alxuraan pàkk boobee ba ma jënde woon néeg ba ma njëkk a jënd ci dëkk bi pàkk boobee laa def daaree alxuraan ci ndimbalal sëriñ bi ngir nag ko yu baree bari nag ñu dox ci noonu ndax sëriñ bi niñ ko wolof di faral di wax jàjju ba nekk fa di jàng di jàngale di jaamu yàlla tey liggéey tax na ba nu xëyee rek ci ajjuma ja loolu moo doon yitte ju njëkk ji ngir dong yi ma àndal ñëw fi am fu ñu nekk ñu def fi ay fan yu néew euh, yeesalaat jàkk ji ñu fi fekkoon fekkoon nañ fi nit ñi daan julli ji te ci bant bu ñuy tëral nii rek ngir di ko xàmmikoo ne fii penku bu julli jotee euh, fa lañ daan jullee ba ci fan yu njëkk yooyu rek ma lijjanti ba euh, am ay lu mën a suturaal barab bi lu demee ne ay seng ak i sàkket ñu seng lii sàkket lii fexe ba mu wër ba nga xam ne yi dox te ñoo jaar foofu mën koo teggi mel ne dawkat yi ak yeneen yu ni mel suturaal barab bi nekk ca loola teg ci ay fan yu néew euh, amoon yu yàgg am yéene taxawal fa daara ay gone yu fa nekk ñuy xëyee ñoom di leen bindal ci seeni àlluwa ñooñu war a sañu saleen yàlla dogaloon ñu tane ba mën a jàng ci ab jukki ñu nekk ci ak ñoom amoon yéene nag euh, taxawal fa daara joo xam ne sunu yéene jiñ ci amoon mooy yore daara ja ne fa di jàngale ndax yàlla dafa dogal barab yi ñu jot jaar ci jàng alxuraan am ci ñaari nit yoo xam ne mm, ñetti nit sax laay wax waaye ñaar ñi dama ci daan waxtaan ak ñoom muy ci loxo yi sëriñ Asa Si yal na yàlla dolli njëggalam bu tubaab beral ci la njëkk a jaar ba nu fi jógee jaar nañ ci loxo yi sëriñ Mahmadan Bousso ci kër Cheikh Soin bu moom la sëriñ Soin bu boole loon euh, waaye fii àlluwa ji mate ci taxawaay yi sëriñ Moustapha Guèye la ca njaareem bis ñuy waxtaan ma ak Serigne Moustapha mu di ma xamal yéene ji mu yàgg am ci bi muy jàng alxuraan la tàmbalee yéene ne bu mokkale alxuraan day day jàngale alxuraan ba la fas yéene def daal ci at ngirug dundam ma xool yéene jeeg pas bi mu ci am te muy mbokkum taali bi mu baax ndem ñoom ñoo mën a am pas-pas yooyu massa ku sëriñ bi dimbalee ñu lay tudd di ko tudd booba la laxoon ci sunu xel ak sunu xol ne pas-pas bii mu am ñu am ko ñuy dox nag ba jamono am nu muy tëdd noo xam ne xëy na xataayu jamono ak yitte yi tënkee nañu noo xam ne loolu dana xaw a jafe naam moonu war waxtu ne ci lañuy ne waaye danañu xaw a jafe naam ci ci sax ci loola ñu nekkoon ca ba yàlla dogal ñu xam ne yitte yi léeg-léeg mu bari sëriñ bi wooluñu Touba doxloo ñu ay yitte walla yitte ñëw fa ñu génn doxu doxi ko te buy mosaan jóg rek wan kër ga gannaaw ci ay yitte fa gone toll dañ fay taxaw ba ba may dellusi ci laa xëy nag bis ne naa sàkk kuy ñëw dinu wutu ci loolu wutu googa moo dem ba sax nag ñu far jël mbooloo mu mu toll ci ñaar ay jamono ba dem ba ñett nit ay jamono dem ba ñeenti nit ay jamono ngir ñu yore daara ji ñuy dox ci loolu nag wax dëgg yàlla am ci ndimbal yu bare bari yu yaatu ndax ndimbal liñ ci gën a am te di ko sant yàlla ak Cheikh Abdoul Lamine mooy njaboot gi ko yàlla mujj dénk toll nañ ci limu juróom-ñaari bant ba juróom-ñett bis woolu na ma ma ñëw yëkkati njabootu boppam googee boole ma ak ñoom keroog bi ma koy def wooluma ci kër gi ma ñëw mu am lu ma joxoñ ci ñoom tàmbalee ko ci ku ñu naan sëriñ Fallou Galas Amina ak rakkam yi damay bañ a lim waaye moo ci magoon ak ña ca des ñëpp ne ma dama bëgg nga yóbbu leen ngay ca sawet wet euh, liggéeyal sa maam ci seen jëmm yi loolu la ma waxoon du ma ko fàtte ko bis booba bi ma ko waxee lu lu kawe ci man la وعلى سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات من am na daal lum def ci man loo xam ne wax dëgg yàlla euh, ndimbal ndimbal la daal ci man mënuma wax ni mu ni mu rëyee ci sama xol ndax ku toll ne Cheikh Abdou yàlla dogal mu jaboote la jaboote ak njabootam yëkkati njaboot ga di la ko dénk ci nu la ci doyloo ak lu ci bëgg sa maam defal la ko ci lam mu ca teg dafa ne ma dama nag sama am dana ci defal tawféex euh, booba it ku ne xam ne ab àll neexut rawatina ci gone yu ndaw rawatina tu tànki mbàkke mbàkke ma am lu ma ca wax ak moom ci wàllu tolluwaay jamono ci wéridi yi faral dal gone yeeg yeneen yu ni mel euh, am daal lu ma ko junj wax dëgg yàlla mu mu dalal ci sama xel lool ci ñemeloo ma ci yóbbu gi waaye dénk ma dénk leen seen maam ju baax ja ci wara ànd gi ànd ak war a nekk gi nekk ak rafet njort ci seen ëllëg loolu dalal sama xel lool gën maa ubbil buntu ndimbalu war a gën a mën a góorgóorlu ci loolu bokk na ci di dëgëral daara ji macha allah sunu doomi sëriñ yooyu sunu mbégte la ñu am ci ñoom ba sunu jonni tey jii ndax ni leen yàlla def ci ndimbalul seen maam waaye ci taxawaayu seen wayjur waaye mu doone lañu ñu ca dara rek loolu dafa dafa dafa tutut ci ñun wax dëgg yàlla doxinu daara ji mën nañ ne boobu ba léegi mi ngi dox ni mu war a doxe lañu ñu fay doon defit mooy boole kook liggéey maa ngi fàttaliku gerte ga ma fa njëkk a bay ci ñaari at ya may baylu di dem nga xam ne dëkkuma fa bu njëkk ba juróom benn fukki junni ak juróom ñaari junni la génne ma indi ko ni def ko ci enveloppe jox ko ko toog mu ne ma lii nag ma ne ko lii de mooy gerte ga fa nga ma woon naa fa bay lu ji rek lii la moo ko joxee mu ne ma lii nag ma ne ko lii mbàkke dañu ko def addee sëriñ Falilu mu ne ma waaye yitte yéeg ma ne ko loolu dafa ne loo ci jublu ma ne ko dama dama noo ma daan wax yow ak sa mbokk mu baax ma sa mag gi sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke Falilou nu ngeen daan doxalee ak sëriñ Falilou ak lu ngeen ci daan sàkku loolu de Mbacke ba ma ko déggee ba tey yàlla dogal lii xëy ma jàpp naa ne daa war dikk ci sëñ bi rek mu am lu ma ci tegal ma sant ci yàlla loolu atum ñaareel ba ñu def loolu yaakaar naa ne it euh, ci 600 nangam mil la gerte ga tolloon moom it yàlla dogal noonu lañ ko jëbbale sàkku ci aw yiw ak di ko roy ca lam daan def ci sangam bu baax ba noonu ci lañ ci la nekk ci wàllu mbay ba bi yàlla dogal sëriñ bi di fa mujj ci 2009 bi li ñu ko mujj jébbal ci wàllu mbay rekk toll na ci fanweeri million ak juróom benn ak juróom ñaar fukk ak nangam kon wax dëgg yàlla mel na ne jëmmi barab ba ak jëmmi liggéey ba ci ci zaayir nii rek am na lu mu jur ndax loo xam ne ci juróom benn fukki junni ak juróom ñaari junni ak nangam mooy mbay mu njëkk mi mi ma njëkk a mbay ci sama uh, sanc foofa ci sama ndigalal foofa jébbal ko ko te bañ koy mujj def mu dem ci juróom fanweeri million ak juróom benn ak nangam limba laa fàtte takkatuma waaye daal 36 millions nangam yi matoon na ci gerte gi képp biñ ko jaayee jox ko ko àddee sëriñ bi te ngooñ ma dikkagul woon ngooñ ma yaatu woon moom it yàlla dogal noonu la ko lañ ko yëkkatee jox sëñ bi bu dee ci wàllu liggéey euh, jaar nañ ci foofu bu dee ci wàllu daara ji it ni ma koy waxee rek sant nañ ci yàlla bu baax ndax bis ba ma fa njëkkee ñëw euh, kër ga njëkk a tibb ab añ indi ko fa ka ko yenn woon indi añ bi ngone su ndaw la woon su jigéen yàlla dogal na ci dogalam yaakaar naa boobu amee fukki at ca lay toll jamono dem na ba mu mu màgg toll ci war a dem kër am ca taalibe ku ko fa yittewoo yàlla dogal keroog maa doon fas sëy ba ñuy dem di dem di dem ba ni àddunay doxe ba yàlla dogal mu am ca bant doom ju góor ñu tudd ko jox doom ji aw yàlla di dogal doom jooje bi mu tolloo ci dalit ñu dalal ko ca daara ja tey bokk na ci ñi dëkk ci dëkk ba mokkal alxuraan bindub kaamil di fa naafila loolu nag dañ koy sant yàlla te loolu dañ ko ciy tudd rek ngir ni mu ñu souvenir bu ñu marqué la ci yaayam moo njëkk yenu ab bool bu def mbaxalum saalum tegal nu ko ñu añ ci ñuy dem ba àdduna dikk loolu ba tey mu bokk ci ñi naan ay kaang lañ ca dëkk ba te amagul ñaar fukki at yi bu matee ca lay toll loolu it am na fa ñeneen ak ñeneen macha allah am na fa ñoo xam ne wax dëgg yàlla fa lañu ñu alxuraan mokkale ko fa binde ko fa yàlla yi dimbalee ñu ñu gëstu ci seeni wuy jur seeni maam seeni nangam mosuñoo gis lu mel noonu am fa mel na ne askan wi ñu bokk ñoo ci njëkk mokkal alxuraan bindub kaamil waaye la ca dàqate it mm, mooy bu koor jotee dañ ko fay naafila te li ëpp ci lim ba ko fay naafila euh, ku ci naafila benn yoon boo ñaaralee doo ñetteel ndax mbooloo ma macha allah bari na ci yàlla dogal lool. loolu nag dañ ciy sant sëriñ bi rek waaye nag di ci sant taxawaay yi euh, sëriñ daara yi nga xam ne ñoo jaar ci daara ji ñu koy tàmbalee ci kuñ naan sëriñ Baara Ndiaye mbokkum taalibe la ci njaboot gi la bokk ak. Euh, sëriñ Mbaye Ndiaye dëkk dëkk bu naan Gayna Mbaar ci am mbokk la moom it di nit ku baax di njabootu dëkk ba ñuy dem di dem ba sëriñ baara Fall mii nekk imaam tey ci Alieu sa ñooñu la ci njaboot gi sëriñ bi jëloon ak njabootam boole joxe fa la bokk te tey ji yàlla dogal na mooy ilimaani jumaa ji ci Alieu di fi jiite waxtu yu juróom yi moom it ñoo koy seereel sunu kent ndax euh, taxawaayam bu. mu wàññiku bu tax mu dem ba yàlla dogal mu yor ndombay tànk yooyu fii foofu la génne ak ñeneen ñu mel ne moom am na kuñ ci naan Serigne Cheikhouna Bousso ma nga ca Ndakaaru yore fa daara ak juma di jiite moom fa génne te yëpp taxawaay yooyu Cheikh Abdoul Bachir Bousso moom Baye Serigne Bousso ci taxawaayam bu rafet ak bu ak bëggam lu baax tax na it ci njaboot gi sunu njabootu bopp boo xam ne ñoo leen jaboote ci wàllu way jur euh, fa la dalee jàng fa ba yàlla dogal ñu mokkal bind kaamil euh, ak yeneen ak yeneen yaatu nañu ko def am nañ ci lim boo xam ne lim bi toll na ci ñaar fukk ak nangam waaye fukk yi juróom-ñett yi ba mujj bind kaamil alxuraan bi yàlla dogalee ren ñuy waaj bis bi dajale nañ leen ndax ku ne bindee kaamil am na ci ñoo xam ne dañoo jël seen kaamil yi ma ne nañ ko yët seeni i jur ñii ne nañ ko yët seen i sëriñ waaye dajal nañ ci limub lu tollook juróom-ñaari kaamil ci benn benn yi nga xam ne seen i dañoo taamoon ñu jox ma ko ñu dajale ko ber ne ma dajalewaat limub xale yooyu binduloo leen benn kaamil kaamil boo xam ne fukki nit ak juróom benn ñoo ko bind ndax dañ cee tànn ñi gën a rafet loxo ñu séq ko kaamilu alquran toog bind ko maanaam fukki nit ak juróom benn bind kaamil bi suqi ko sàdd ko maas ko ñu jox ko ay borom xam-xam ñu topp ko ba mu mel ni mu war a mel ñu jël benn boobu mbooloo mi bind ak juróom-ñaar yi jébal ko Cheikh Abdul Muntaxa lool yooyu bokk na ci histoire yi nga xam ne daara ji am na ko waaye nag loolu yëpp yëpp yëpp gannaaw buñ ci sant yàlla suñu boroom sant yontu sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne euh, mooy kilifa jullit yëpp dañ ciy sant Cheikhul Xaddim mi nga xam ne lépp ci njàngaleem la lépp ci kum jaboote rekk la jaarale ko Cheikh Amadou Fadal ba mu ñëw ci Cheikh Amadou Lamine mi nga xam ne euh, lu ci yëngu ak lu fa jag rek ci taxawaayam la ci yéeneem la ci bëgg-bëggam la ndax yàlla dafa dogal moom bi muy jàng alxuraan nekk ci dëkk bu ko sëriñ Baara moom Cheikhul Khadim turandoom yóbbu woon nee na ma 1932 góor gi góor gi la ma daan wax daawut jaar sax ci galas ji lu li mu ko daan wax bëriwul mu ne ma góor gi dëkk bii ma la indi 1932 laa fi njëkk a ñëw ngir xam ne sa taalibe maama ngi fi ma leen di nemmiku si am naa fi yéene yu rëy yoo xam ne bëgg naa nga taxaw ci yéene ya yama fi am mat ba sa yéene dugg ci biir mat ma ne ko alhamdulilah mbàkke fas nañ ko yéene loolu kon lii lii feeñ mën nañ ni ci ay yéeneem la la soqi ko Euh, kon mel na ne bu dee wàllu liggéey boobu it ba léegi ñu ngi ko fi wéyal euh, bu nawet jotee li war ci ku nekk ci barab booy liggéey ci diggante bay gerte bay dugub bay mboq bay ñebbe ak xeeti mbay yi mën a ñor ci nawet yëpp ña ngi koy def boobu ba léegi yàlla dimbalee nanu wax dëgg yàlla nan ko doon seqee Cheikh Abdou Lamine rek lan koy def suñu digg ak Serigne Moustapha naam sunu maga ñoo bokk wéyjur wi waaye dañ ko jàppe jur ngir ki nu boole jaboote ak moom it ni mel ci noonu nan ko daan defee Cheikh Amadou Lamine rek lañ koy defee ba sunu jonni rek jii weesu lu nu fa bay bu yàlla dogalee mu sont ni koy jël indi gerte gi jox ko ko wala mu yëg ni gerte gaa ngi ñëw mu ne nañ koy soppar ñi def ko xaalis indil ko ko ba ren jee ci mujj loolu moom fas nañ yéene li feeg ñoo ngi am kilifa tey duñ ko ñàkk mukk incha allah ndax ñun loolu lañ yittewoo am kilifa. bëggunoo nekk kilifa guy gu gu nuy jiitale kilifa nga déedéet bëgg am kilifa gu nuy jiital ngir ñu xam ne dañ ñoo yilif ci loolu la ñuy fas yéene dox ndax ci lan ñu jaboote te ci lan ñu nàmpatal bu dee ci wàllu googu ci wàllu dëkk ba daal loolu mooy histoire bi nga xam ne taarix bi nga xam ne wax dëgg yàlla lu ci lu fa am la yooyu yëpp nag ñu koy sant rek lépp ak cant la tey ñaanal waa dëkk ba nag ndax ab dëkk boo fi ñëwee yàlla dogal ñoom ñu am pas-pasu bëgg ku leen womat ak ku leen tette ñu nangu ko ña ñu yàlla dogal ñu mën koo nangu gisuñu fa ku gàntaloon loolu ba tax na ku ci ne ba mosaan sol sama dàll ñëw sa kër waxtaan ak yow la la say at weesu ba nga jàpp ni mënoo ko da ngay jël sa doom sa doom wala sa jarbaat wala sa sët joxe ko ñu indi ko ci daara ji teewul ñuy wax ak ñoom ba mag ñi fañ tolloon ca lañ xam ñu jël sëñ Bachirou Bousso muy muy gàggante mag ñi ci jàppale leen ci lu ñu xamee seen diine ba léeg nga dem fa fekk fa mag muy nodd loolu ci ci ndimbalal sëriñ bi la bokk bu dee nag euh, jëmm jëfa tëdd nga xam ne mooy Mame Balla ci li ñu ci dégg ci histoire mooy moom bi maam Abdou Khadir làqoo ci Mbàkke la amoon yéene ne du dëkkati njabootam goog yi làqoo woon ak xat-xat ya mu làqoo woon doon wuti barab bu dogu te neexe jaamoo yàlla moo ko indi woon ngay ci ni ko waxee nekk na daal ay at yu néew yàlla dogal moom it la lam doon la daloon doomam fee ba tax mënu faa ne far ko dab fii ay xat-xat dikk ba yàlla dogal mu làqoo fa ak xat-xat ya mu làqoo 1867 nag nee nañ la fa tëddoon mooy lu jiitu wala boog bi yàlla dogalee ci niñ ko waxee ci taarix maam Cerno Birahim dikk jamono ba am ñetti at ca la fa maam Balla Aysata doon kon loolu yàgg la euh, tëraayam ba nag ak na ko yàlla dara ji ko yàlla defar yàgg na naam ba 1988 Serigne Bara di am yéene yóbbuñu fa ba sunu jonni tey jii li fa xew ci di ndamal lislaam la fa xew te aju ci liggéeyub sëriñ Touba boo xam ne euh, dañ koy sant sëriñ bi rek euh, jëmm jëfa tëdd loolu day wane tegtalu ne ñoom lañuy xeeñtu ba dem fi barab bu ñëw tey dana ñëw ëllëg ndax 1867 lu yàgg la waaye 1988 ak suñu jonni tey ji 2019 diggante ba la yàgg na waaye diggante bi yàgg na yàggul waaye am na meññeent mu fi bàyyi moo xam ne euh, wane na ne kii fi tëdd euh, am na tawféex suñu borom ndax li fi xew lépp di ndamal lislaam li fi xew lépp di liggéeyub sëriñ tubaa di ndamal lislaam ak ci njabootam rek la bàyyi moom fa tëddee ba sunu jonni yi benn mbàkke mbàkke fa njëkk a mokkal alxuraan bu tudd sëriñ xaadim mbàkke di doomi sëriñ am amsatu mbàkke moom sëriñ ibra moom sëriñ moodu xabbaan moom cheikh mandumbe moo fa sant mbàkke ñu xam ne moo njëkk a te ci daara ji la nekk ka ca topp alaaji baara mbàkke la di maa sëriñ baara di sëtub sëriñ fall ñaar ñi nga xam ne ñoo fa njëkk a mokkal alxuraan ak sëtub sëriñ Mbàkke Buso sëtub sëriñ Buso be bu tudd Baye sëriñ Buso kon ba teyit it euh, tawféex yi euh, def lu baax ak tawféex yi nekk ci liggéeyal yàlla li muy juróngoog li fi dox ci diggante bi bari na waaye njabootu boppam gi feeñ gannaawam di jaar fi muy jaar ba agsi ci ci ñett ñooñu ko mënoo cee génn kenn maaram te maaram bal la maam maharam maam Balla kon ak njabootam loolu la la ca des ay bokk lañ yoo xamante ni di ay taalibe xanaa la ci gën a yéeme rek mooy am na ci mbooloo moo xam ne ñëpp suñuy mbokki séeréer lañ dama koy wax waxtu ne ne leen war nañoo gën a góor góor ndax séeréer si yàlla dogaloon yëpp ñu seeti leen ñu indi fi seeni doom te bokk ci njabootu Sëriñ Baara yàlla dogal na ab lim bu yaatu bu ëpp fukk mokkal nañ ci alxuraan ba bindi kaamil am ci ñaar ñoo xam ne dañ ma dañ ma marqué ndax kenn ki bi ko fi woy juróom di indi mag la ay atam bari na waxtu wi tembe timis jëm gee la ko fi indi jóge ca gannaaw Daaru Musi miinantewu ma moom xëy na dégg-dégg la am ak yaakaar ak yéene di ki dénk ko te moom mi nu koy dénk euh, yàlla dogaloon na am na lu ëpp juróom ñaar fukki tumuranke moom nee gu mu toog yëg ko ne tumuranke na ko ci diine moo tax loolu muy ñaan yàlla mu bañ a dab doomam te mage na doomam juróom benn fukki at ak nangam mu ne ma te xawuma kañ laa fi bàyyi ko te sama doom ji dama am ci yow yéene te bëgg nga taxawal ma ko mu mu xam dara te nekkob taali bi lii lii la ma dénk ndeysaan bàyyi fi doom ji yàlla dogal bi mu demee matul weer wala ñaari weer làqu tey tawféex dikk na ca doom ja macha allah mokkal na alxuraan bind na kaamil kaamilam bokk na ci kaamil yi ñu jox Serigne Touba Cheikh Amadou Mountakha kon loolu am na tawféex te bàyyi moom wax ne ma mag naa sama doom ju lépp juróom-ñaar fukki sax la ma wax lam ca mooy xaw ma dara mënuma dara waaye nag damaa bëgg sëriñ bi te bëgg ku ma taxawal ci sama doom ji ngir mu xam dara mën dara te nekkub taalibe wallahi alazim lii la ma wax ma ngi ci njëggalal yàlla koy ñaanal yàlla dolli ay njëggalam keneen ki ab séeréer la moom it lu dama koy faral di nett lu xorom daf ma cee dal ndax daa bokk ci ñi nga xam ne ñoo jaboote seeni wayjur naam seeni wayjur it wax digg yàlla xëy na euh, xam gi demewut noonu fa ñoom waaye moom it dafa am bis ma ñëw ci daara ji gis ko muy sotti ay rangoñ ma woo ko laaj ko mu ne ma dafa am ku ko doon duma ma ne ko lu tax mu duma la waxuma dara lu leer ma woolu ko ki ko yor mu ne moom kat ñuy def bu ñuy añ buñ ko woowee du lekk te bu ñuy reer du nit ñu woo ko mooy mën ci reer bi te day yor potam nag di tibb ci cere ji ñuy reere xam naa jàpp nañ ne dafa siis ma ne ah loolu de xam naa dara bu ñu bu ñu añ daa suur bu ñuy reer xëy na loolu la xeram toll naxtaan leen ko ci jikkoom ji ba ba ngeen ko ci mën a dindi indi ko ci ji ngeen nawlu waaye kenn du def noonu ko ne ma woolu ko bis mu ñëw ñu waxtaan ma ni ko ma laaj ko ci loolu mu ne ma li ñuy añee ma ne ko li ñuy añee nu mu tudd mu ne ma nee na dégg na ne ceeb la tudd fii la ko mu njëkk a gisee ci daara ji ne ma moom xamut cere xamut ceeb cere rek la xam fa dëkk cere lay añee cere lay reere gone séeréer gu ndaw la ndeysaan loolu ndeysaan rëy ci boo ko déggee bu xoromu ci man loolu diggante man ab tukulóor laa ci duñ ko waxe ba bu séeréer waaye kooko tey mujj na ba guddi yi may wax yow ma ngi ca daara ja ba tey euh, ci ñu naq lekk ceeb la bokk waaye nag am na tawféexi mokkal alxuraan bindub kaamil am na tawféexi kaamilam boobee bokk na ci kaamil yi ñu jox sëñ xundu mun taxaa loolu wax dëgg yàlla lu lu ma marqué la ci ci ci biir gone yi ci ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla askan wi ñu naan askanu séeréer ñi ñu ci yàlla sédde te ñu xam ne am na lu war ndax liñ ci jublu rek mooy xool ne ki ñu yàlla booleel muy sunu niituwaay di sunu royuwaay ci fi ñuy roy wala fi ñuy xool wala fi ñu bëgg amee taw tawféex muy cheikhul xadim cheikh Ndou Lamine la te lam ñu daan wax fàtteguñ ci dara fam amoon yéene ak daan ñu fa jaarale bëggal ñu lu baax ak bëgguñu ne ci lu baax rek a tax tax na bi yàlla dogalee mu yóbbu nu foofu di nu liggéeyloo li sunu yitte njëkk a nekk mooy fexe ba képp ku mu jaboote te am ak yow ab diggante rawatina suñu mbokki séeréer yooyu ak ñeneen ñu ne mel damay dem seeti liñ ci dëkk yiñ dëkk gane ji leen liggéeyloo de ab joxañ la ci man joxoñ bi mooy dëkk yi yi ma bi ma leen xoolee yépp ay dëkki séeréer lañ li ci ëpp teemaa fexe ba dem waxtaan ak ñoom ci nu ma jële ci seenu njaboot indi leen ci daara ji ngir ñu ñu ñu xam lu tax bu ëllëgee àdduna day dox du ñu yabal ku dem di leen defalati loola loolu moo ma moo ma joxoon xalaat ak yéene liggéeyal sëriñ bi loolu ba yàlla dimbale nañu ci fii ngeen toog nii rek am na ngóor suñu naan galas jonn mu ngi fii ci ëtt bi euh, kuñ naan sëñ Abdou jonn moo ko jaboote ma nga dëkk ca gannaaw njaareem ca diggante siin ak bawal bokk na ci dëkk yi ñu daan yable di fa julli ji tabaski ak korite tey moom yàlla dogal na mi ngi fi di àggale njàngum majaalisam man euh, lañ ko tuddee fi la dale mokkal na alxuraan bind nëb kaamil mu ngi jàng xam-xam fi la di jàng ndax jóge na ngay ma indi ko Tuubaa muy jàng xam-xam waaye fi ne bu tabaski jotee moo fay jiite ji macha allah def xubba yeeg yépp bu koor jotee dama koy teel a yabal bu desee ñaar ñetti fan mu dem fa fasal leen di jiite di jiite waxtu juróom yi ak di leen naafilaal ba koor gi jeex mu am fa ay fan ñibbi si dellu ci njàng mi ndax dama ko ni njàng du mat waaye dama bëgg nga góor góorgóorlu ci du la fa bette loo xamut wala doo fa jaaxle ci looy wut siwaat di ko laaj loolu rek a tax ñu tey ko fi loolu am nañ ci ñeneen ñu ne mel ci ci yeneen dëkk dëkk bu ñu naan mbaam séeréer dëkk bu ñu naan bari na ci rawat na ci dëkk séeréer ndax loolu liñ ci jublu rek mooy liggéeyalee sëñ bi ndax ni ma ko waxee bi fi sëriñ Baara nekkee di ma wax demal dëkk sàngam wala wutal ku dem dëkk sàngam loolu dañ ko war a dégg di ko def waaye dañ ko war a xoole ci lay tax loola saafaraw loolu ci lañ doon di dox li ci jéem nag macha allah yaatu na dëkk yu yu yu yu am loolu yoo xam ne yéene ji nag mooy dund ba taxawal fa daara waaye yàlla dimbalee nañu ci barkeb sëriñ bi ba dëkk bu ci ne lu ëpp fukki nit jële naa leen fa ngir indi leen ci daara ji am na ci ñoo xam ne macha allah ñu ngi ñu ngi toll ci mokkal di beqi am na ñoom ñu ngi toll ci bind kaamil am na ci ñoo xamante ni jàng nañ ba noppi ñu ngi jàng majalis waaye liñ ci jublu rek mooy coono bañ daan daj ci dem fa ak ñoom ñu jóge fa ñëw loola saafarawu fa loolu it nag dañuy ñaan Cheikhul Khadim ci taxawaay yi nga xam ne war nanu ngir ay taalibe leen mooy dëkk yooyu li muy bari bari bari bari ak li ñuy soriyantoo soriyantoo ñuy ñaan tawféexi sëriñ bi ba dëkk bu ci ne ñu dem fa wut fa pàkk defar ko doon deka dañ fay def ñaari néegi sàkketit lijjanti ba ña a jógewoon te ñëw te ñu wér nañu ne am na am nañ tawféexi sëriñ bi ñu taxawu fa luy dolli tawféexi sëriñ bi ca ñam war a dugg ca ñoom ndax ñoom wér nañu ne eh, li ñu jot a xam te mokkal ko eh, macha allah am nañ ndimbalu ñu ngi koy téye ba léegi ndax ñi leen di jàngal li ci ëpp li ma leen def ca daara ja mooy gone gu la wér ne mën naa xëy tari juróomi isib suba tari juróomi isib ngoon baax na waaye defal leen ko ñetti isib suba ñetti isib ngoon gone goo goo ko saxal mu koy tari am at la muy tari day mokk dafi ne léegi ma dugg ci daara ji loolu laa leen di wax gone gi diw sàngam la lu muy tari gannaaw bi mokkalee wala bi muy beqee wala bi mu bindee kaayil ba pare ñu ne ma kii kat dana tari fukk suba fukk ngoon damay woo sëñ daara bi ne ko baax na waaye bu ma sañoon am na ci loo xam ne kenn du ko am na lu ñuy sarse loo xam ne surtout yi alali suñ borom kenn du ko ñoox nit ñi doon tari fukk dama mujj ne leen nañuy fukk suba fukk ngoon baax na waaye def leen ko léegi juróom suba juróom ngoon ku mokkal alxuraan ku ne danañ góor góorgóor ba téye la atum yàlla moo xam ne ci loolu ngay sax loolu daaw xuma daaw jéeg laa ko tàmbali waaye dañ daan tari fukk suba fukk ngoon man leen deneen tari juróom suba juróom ngoon ku ci sax atum yàlla rek li ngay mokkal te di ko tari doo ko fàtte ñu doon tari juróom suba juróom ngoon dama ne nañ ko yemale ci ñett suba ñett ngoon ndax foofu loolu maa ngi ko jëlee ci ku ma doon wax ne man daa am ko ko sëñ Fallou boole loolu ci njabootam la ne ko waaye boo demee yan ko lu mu ne àttan na ko rek yan ko lu mu àttanul bàyyil ko fa ba mu àttan ko <laughs> yooyu yëpp nag kii ci tawfeexi sëriñ bi rekk la ndax li may wax euh, kaay kaay kaay kaay kaay kaay liggéey yi ku la ko wax rek bëgg na nga jariñu te Cheikh Amadou Lamine nun amuñu payam ngir lu bare bare bare bare bare bare waaye gën na noo xame ne amuñu payam ci bi nu boolee ci Seexul xaddim gën na noo xam ne amuñu payam ci bam mu nu yóbboo ngay ñu fay liggéeyal sëriñ bi ya fa xew yépp tax na fu nu toog sunu xol day tooy ci jëmmam ji ci ak nekkam mën na ni ci ak wuteem ci sunuy bët tax na dañuy yamale foofu suñu waxtaan tey sàkkuwaat ci yàlla suñu boroom ci Seexul Xadim Seex Abdul Faadal mu dolli Cheikh Abdou Lamine ay leer dolli ko njëggal te njabootu boppam gii fi des di sunuy sang ñu tàmbalee ko ci Cheikh Abdou Moustapha yàlla ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla yiir yàlla ko yàlla dolli wér ak njabootu Cheikh Abdou gépp ci góor ñi ak ci jigéen ñi ak sunu wayjur yi nga xam ne nekkoon nañ ci kër gi di liggéeyal sëriñ bi waaye duñ fàtte mukk sunu bokk yu góor yi ak yu jigéen yi nga xam ne ñoo bokk jabootewu ci Cheikh Amadou Lamine te yàlla dogal seenub liggéey mat ñu jiitu ji te bu nu ci tuddee Serigne Khadim Mbakke di rakk ci Serigne Moustapha toppoon ci moom nekkoon sunu mag nekkoon sunu xarit du ko fàtte mukk dañuy ñaan na ko yàlla defal njëggal moo rakki boppam yi nga xam ne Serigne bi jaboote na leen ak képp ku yàlla dogal nga làqu waaye di ci teg soxna maam Awa mi nga xam ne moom it rakkale ci Serigne Moustapha yàlla dogaloon ñu bokk lépp euh, di ko ñaanal ak njaboot gu jigéen nga làqota nekk fa yàlla dolli leen jëggal te barkeel njaboot gi fi desandi waaye wuy jur yi nga xam ne yàlla dogal na ñu jaboote ñu ci biir kër Cheikh Abdoul Lamine te ku ci tudd soxna Aji Fat lay mu doy sëkk ci ñëpp nga ca biir ci ku ci aju te yàlla dogal nga làqu di ñaan yàlla yal na yàlla dolli seen njëgal di leen sant bu baax te di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. مكارع الدارين كفيت للخارين والنارين